gars yi ma ziar leen bu baax a baax kontaan ci yéen di leen bëggee ñaana leen jàmm ak euh, salaam ak afiya gars yi xibaar yi am na solo bu baax a baax lu yes peq daanaka Ousmane Dembélé Ousou Boy ak ki nga xam ni moo nekk kii di ñancoo nasal sa ñancoo national Euh, Sadio maane ay mbiram am na lu ca yees peq gars yi toppale nu ci abonnement yi yow mi door a ñëw di catalan dabbar ñil bu baax a baax yow mi nga xam ne am merengue la man nga koo def donte def nga koo pare nga séddale vidéo bi ci gox yu fasantikoo yi bu ko defee ñëpp man cee jot ak ñëpp ñoo xam ni euh, équipe bu ñuy topp rek information yu wér te da ngeen ko mën a am ci ëtt bii di Aladji Malick TV accord bi nga xam ne kii di Sadio maane akub équipe daanaka gars yi am nañ ko ak euh, waa Al Nassr waxtaanoo moom fi mu toll nii amatul tëj nañ bunt ya sànni caabi ya géej léegi nag Sadio Mané ñancoo national euh, bu ma juumul mi ngi ci fafal naaw wuti fële nga xam ne euh, moo nekk Arabie Saoudi wala boog fële ca Dubaï bu ko defee foofee lay passé visite médicale ndax visite médicale moom soree na ak li nga xam ne daanaka mooy dëkk ba ngay football fu la neex ak fu la médecin yi doyee équipe boobee moo koy choisir loolee nag daanaka kon dina am solo bu baax baax kon ñancoo national Sadio Mané contrat boobee euh, gars yi da ngeen ko xam euh, fii ak suba euh, visite médicale bi xalaat nan mu am suba ci information yi nga xam ni am nañ ko ta coytu ko segg ko si parñe ko ba mu leer nañ mu nekk loo xam ne dana doon mbégte ci yéen waaye Paris Saint-Germain moom mii tamit daanaka xamul fu muy taxaw mu nga bëgg Ousmane Dembélé ngir bu kii di Kylian Mbappé demee Catalan yi nag ña nga yeew Ousmane Dembélé maanaam danu ko jatang jatang goo xam ne daanaka fi mu toll nii mu fiñ ci jatang ba jafe la ci moom kon Barcelone xanaa fi mu toll nii wala boog Paris saint ne xanaa day xar wala xamatul fu mu jëm ak ku war a jënd usul bébé Ousmane Dembélé euh, demagul euh, fële ca Paris Saint-Germain ma ngay wéy di des euh, ca Barcelone tey it Barcelone ma ngay wéy di waxtaan ak moom pour gën koo yokkal ay contrat mu gën fa ami at def ko leaderu équipe ba fa la nga xam ne mooy côté càmmoñ ba loole nag bu fekkente ni Paris Saint-Germain xam na ko na dem noppalu yeneen information ñi koy lijjanti ñi ngi fi ngir yéen pour information wér tu wér jërë